ay leeral joxe na ay tur joxe na ay numéro mhm. wax na fan la li nga xam ne ñoo am gaañu gaañu ak ñàkk mhm. seen bakkan fan la nekk mhm. mais euh, ce même Abdou Karim Fofana dañ koy gis parfois aussi ci ay kàddu moo waxoon ne Ousmane Sonko dafa bàyyil appel à l'insurrection finalement li ko toppee bokk na ci appel à l'insurrection est-ce que quelque part loolu it du indi jeexi jaaxa quand même waaw xam nga ñoom ils sont au niveau de l'État ils sont au sommet de l'État day ku mel ni wax léegi Abdou Karim Fofana bon ci li ma gis si moom jàngoo ci moom du nit fi mu bokk la waaw fi mu bokk la lu mu wax <laughs> am na fu mu ko teg te na ko cay charte ce n'est pas pour rien ñu def ko le porte-parole du gouvernement donc lu mu wax gëstu na ko mûrir na ko ba am fu mu ko teg la preuve bi mu génnee ba passé ne y a plus de menace de jàpp Ousmane Sonko parce que le fait que amatul menace moo tax dañu mën koo jàpp yan yan contrainte mooy contradiction amul ci loolu. non y' a pas de contradiction Ousmane Sonko dafa tuur appel à l' insurrection. après ñu gis ko ñu mais dama ne la. xam nga lu nekk état dafa am paramètres yu muy jël yoo xam ne ñun duñ ko xam état dafa am nu muy doxee. tey ku mel le porte-parole du gouvernement bu génnee def discours waxul discours am day engagé le gouvernement bokkul te man ne la ki nga xam ne moo jël parole di ko wax ci li ma xam ci moom nit ku dëggu la nit koo xam ne la du wax loo xam ne ni wóoru ko wala wax lu mu maîtriser wul donc ay waxam ku muus dëgg da koy faral di koy faral di bàyyi xel donc moo tax tey ma jàpp ne li mu wax tey au niveau euh, de cet accident bi am euh, fële ne la yaraa ak yéen yéen damay jàpp ne dëgg la waaw bu doon keral la mën naa ko remettre en cause moom gëm naa gëm naa kàddu bi dinañ ci taxaw tem dina leen traqué comme ni ko premier euh, ministre l'intérieur Félix Antoine Diome waxee woon mm. maintenant mooy dinañ traqué dinañ teg loxo mais à quand fin de cette situation aussi waaw mais bu ñu di rek bu bu ñu violence bi arrêté État exerce le monopole de la violence légitime État mooy assurer la sécurité des personnes et des di régler problème réew mi ñoom nañ dénk réew mi fii ba 2024 jot État bi nañ ko dénk président de la bi nañ ko dénk bés bu ñu arrêté banditisme ak yàq ak ak ak xamadi état tamit li mu war a def tamit moom tamit euh, dina ko def. mu mm-hmm. muy arrêté. bu dee arrêté wu ñu moom ne ci li mu war a nekk rek. mais ñu bëri jàpp nañ ne prétexte la war a doxee. Euh, état jël na ay responsabilité am ci yi nga xam ne jàppoon nañ ko état bi dafa ragal aujourd'hui ñëpp xam nañ que l'état est fort ñëpp xam nañ la justice elle est forte mu war a doxee mi ngi koy doxee ñu bëri ne woon nañ duñu condamné nit jot nañ ko fee condamné duñ ko àtte duñ àtte nañ ko duñ ko jàpp jàpp nañ ko duñ ko instruire instruire nañ ko duñ ko mandat dépôt daa dépôt nañ ko mais bu ñu demee ba dégg année dañu war a def état d'urgence et cetera mais mm, yooyu aussi ñuy dégg non yooyu ay waxu mbedd la mais lu mu wax lu ne à chaque fois dañ koy gis jàppal ki ñu dem jàpp kii su waxee loolu est-ce que nekkuñ ci prétexte boobu ce qui s'est passé ak Yarax à Thiès à Mbour également on dit si yu ñàkk fayda dëgg yàlla ñi nga xam ne ñu ngi def seen liggéey normalement di dox normalement di wax normalement def politique normalement di wax lu leen neex tamit normalement di ko teg ci yoon bokkut ak ñi nga donc ku yee fitna dañ lay teg loxo loolu amul amul amul réew boo xam ne Sénégal sax li fi njiitu réew mi may dafa ëpp ku mu neex ngay wax lu la neex da taal sa téléphone commencé saaga jël kilifa dina yi saaga leen jël présent de la République saaga ko moom bokk na ci ñuy dàq muñ ci réew mi ñu gën a tolérant ci réew mi ci la bokk lu nekk da koy dégg mais day bàyyi day bàyyi mu sedd donc nit ñoo war a xam ni euh, mbir bi dafa am fu mu fu mu toll muy anu fooy toll jeex da ngay appliquer li moom mooy la règle la ñu nekk ba tey ñi nga xam ne takkuñu ñu defee enquête ba nañu bu ñu instruire dossier bi jàpp ne Ousmane Sonko defu ci dara dañ koy bàyyi mu ñibbi parce que ba tey deful dara. ok mais euh, jël ko mel ni Ousmane Sonko. Mhm. Euh, l' opposant le plus populaire. Mhm. di ko nangul. Mhm. Euh, le chef de l' opposition ko nangul aussi également mais kooku. ak li mu fi def yëpp ñu gis un procureur ñëw présenté ne way moo fi wax mortel combat moo fi wax Gatsa moo fi wax Samuel Doe jàpp ñu gis nañu accéléré dossier bi tout suite après ñu def ko mandat 2021 ba léegi. 2020 non si le procureur de la république am na diiru ñett at yoo xam ne nii boo defee dara en matière délictuelle mën na la topp bu jeexee nag jeex na mais 3 ans yëpp mën na la topp interpeller heure bu ko neexee en matière délictuelle en matière criminelle nekk 10 ans. loolu mooy la prescription de l' action publique am bu ñu woy la prescription de la peine maanaam bu ñu attee ba pare ba nga daw juróomi at bu ñu la jàppee tegee loxo dañuy yóbbu kaso bu dee am cee criminel vingt ans loolu nag gars yi foog ñu ciy bàyyi xel donc procureur bi ñu ci ay deleem bi muy wax mi ngi bind mi ngi noté bi ñu taal ay kër mu ngi bind di xool yan acte la bi ñu taal ay bis mi ngi xool ban acte la bi ñuy attaqué ay nit ak ay nervi ak yu demee noonu mi ngi xool yan acte la bu pare bu dajalee loolu. non moom bu ko wax yéen a koy nervi moom koy tuumaal. ba gis ñi génn àdduna lañ koy tuumaal. ba gis ñi génn àdduna gis ne am na ñoo xam ne dañoo jot a am na lu tax ñu génn mu génn ne moom jàpp na ne lii ak lii jàpp na ne lii ak lii ak lii lii Ousmane Sonko laale na ci jël dossier bi dañ ko juge d' instruction boole ci diffusion de fausse nouvelle mais kooku koy l' instruction elle mais fu mbir mi commencé moo reeloo nit ñi ay sàcc téléphone. mais premier communiqué euh, wax ci loolu. non wax mooy Ousmane Sonko dañ koy joppee. vol téléphone ak appel à l' sañ-sañam la. après mu génnaat gën a procureur mën nañ indi la ba ci moom mu xool mbir bi jël la teg la charge yoo xam ne ni jàpp na ko def nga ko loolu sañ-sañam la le procureur de la République moo yor l'opportunité des poursuites <laughs> c'est lui donc du man du keneen. kon léegi Ousmane Sonko daa am élément déclencheur ci moom. non mais contrairement à Sénégal balaa Ousmane Sonko am na ñëpp ah, que Ousmane Sonko nag quand même. c'est pas n'importe qui waaw ah, il faut le dire oui. ànduñu ak moom ah, mais koo xam ne la. c'est pas n'importe qui yor mhm. yor appareil di politique am lu mu yor def aussi. yokk ci. waaw yàlla may ko doole. yàlla may ko doole mais. nit ku nekk dafa am ay charte yu la tënk ci réew charte yooyu noonu ak noo mënti toll ak doyoo goo mënti am da tënku ci charte yooyu ak noo mën a toll ak doyoo goo a am ndax doyoo mënoo ko am ba weesu président Macky Sall ndax tey li mu bëgg a nekk loolu président nekk donc moom moo soxla li président nekk loolu nag pour yegg ci am yar am teggin am nooy doxe c'est un jeune boo xam ne ni tey kenn képp kuy politique mënoo ne Ousmane Sonko du jàmbaar mënoo Ousmane Sonko indiwul dara ci lu bees ci politique am na mais a ko dëgëral aussi te loolu il faut avoir le yére yu bëri def na ko. mais l'élément l'élément déclencheur waxoo si. non non dama ne la l'élément mooy le vol vol boobu ko kenn ñàkkal fayda parce que yoon na ne une soustraction frauduleuse frauduleuse d'une chose appartenant à autrui képp koo xam ne. mais ana données personnelles. jël nga nit ana données personnelles nit ki tey y' pas de problème Ousmane Sonko même bu dul dara normalement c'est un homme public. c'est un homme public lan lay def day nëbb après dafa dafa na dafa na j'ai arraché son téléphone. mais ku paan ku paan lu mu ñëw di filmer nit. mais teg si ku paan non wala yow da ngay remettre en cause du procureur. non je dis pas ça mais ku paan la ku paan. non mais li li procureur wax dafa leer avant loolu Ousmane Sonko moo njëkk a génn avant communiqué di génn ni am na ku ñëw sama mën ko ay ay ay ay éléments renseignement ma arraché téléphone portable bi arraché mooy lépp suñu la mooy arraché tubaab. donc moom si boppam reconnaître na que am na benn benn benn acte boo xam def na ko léegi nag si c'est l'élément déclencheur aussi am na lu procureur énuméré taal caméra yi ba ñëpp xam lan ak la topp. mais cette forme de communication également. bëggoon naa la ci déggee Mamadou Gueye. Mhm. Euh, parce que j'ai l'impression que procureur doon préparer askan wi comme kii nitu fitna la euh, comme ni ngeen koy waxee nit la koo xam ne dafa yee fitna et mhm. cetera ci forme bi déjà. waaw ci forme bi. oui le mu dagg dagg ay. vidéo non non ci nu mu ko arrangé moom bu ko neexee xanaa pas nu mu ko arrangé dafa wax loo xam ne warut a génn gémmiñu nit loolu dafa leer je peux sa ce pays ingouvernable man maa ngi nii nañ ma ñoo jàpp atte ñu ma par contre maa ndax sama kër loolu mooy état daf laa ragal mais état gu xam état xam ne état boo ko songee sax day reculer ndax état li mu yor dafa dafa permettre yi mu war yi mu war a jël maîtriser ko balaa muy interpeller nit dafa bari donc songee yeneen ni état mooy ñàkk xam état mais comme état doo soo ngeen leen ni état important laa la wax gars yi dañuy dox du ñu xam la mooy état mais état kenn kenn moo koy song. moo tax ngeen dagg-dagg ay vidéo noonu teg ko non pas moo yu mu wax tey mu nga def discours une heure de temps ñu jàppee la ci waxu deux secondes il faut nga xam. dafa am loo xam ne warut a génn ci géem yu nit. ok mais maa lay wax ni ñu tattafee dossier bi bëgguloo ci tontu. mais aussi xaw na gaaw kuñ jàpp. vendredi. samedi ñu audition la dimanche. lundi après mandat dépôt dañoo prolongé garde à vue yëpp kon foofu amul ak tam tapi dañoo prolongé garde à vue ñu pare garde à vue procureur jël ko jébbal ko le juge d' instruction. ak tribunal bi ñu ko yóbbu. waaw mais bâche mais est ce que moo ko dem euh, BAG. est ce que fa ñu dem jàppale wala yóbbu commissariat ah, ñu enquête la après ñu yóbbu ko yóbbu ko fu nga xam ne mooy. est ce moo fa ñu ko dem foofu dig la bokk <laughs> foofu dama dig la bokk. donc police moo ko jël. ba waa sûreté urbaine bàyyi ko fay ñëw tribunal di ko enquête. dama ne la loolu yëpp gis nga ni mu war a doxee procureur ko géré OPG yi procureur dañuy déglu parce que bu ñu paree seen enquête procureur dañuy jox bu ñu bëggee prolonger garde à vue procureur moo koy autorisé pour ñu mën a prolonger nit garde à vue renouvelable une fois garde à vue loolu rek la donc tey bu ñu ñëwee bu ñu jël ko yóbbu ko juge parce que am la. te l'instruction elle est obligatoire en matière criminelle. li ñu ko toppee lépp crime la rek. après à l'instruction ay atteinte à la sûreté de l'État mais vol de crime. et cetera et cetera vol de crime. mais boobu moo si gën a tuuti. vol de crime te moom la procureur mujjee sax bi mu lim. keroog point de presse bi normal moo si gën a tuuti comme ni nga wax. ok mais su ñu jàppaloon aussi arrestation bi c'est bien calculé parce que les magistrats war nañu dem fête mm-hmm. à partir de je pense le premier euh, li nga xam ne moo di août bi euh, ba mois de septembre. Mm-hmm. ñoom ñoo ko wax mu arrêté téléphone bi ah, téléphone bi. mais bu procureur waxee ne c'est l'élément déclencheur. Ah, waaw mais gis nga état bu bëggoon jëli Sonko ko bëggee jëli da ko loolu moom. c'est ça le danger danger mooy ñu bëri dañuy foog ne faiblesse su état la wala état dafa ragal alors que état paramètres yi muy jëli ñun duñ ko jël xamuñu ko mais ñëpp xam nañ te arrestation bett nañu bëri donc problème calendrier état bokkut ak ñun suñu calendrier bokkul tey Sonko n'a pas un problème avec le y des gens yoo xam dañoo dañoo saaga le procureur saaga le général musa Fall saaga le le le haut commandement de la gendarmerie ñoom ñëpp mu Moussa Fall saaga les juges les magistrats kenn baaxul saaga président tafaru sëriñ yi saaga leen kenn mënutul wax mais loolu nag bu amee ci politique aussi nit dañuy xoolaat xool ndax ñii nii ndax am nañu raison d'être wala war nañu woon a corriger on a on a pas un problème de personne ok léegi euh, ñu def ko de dépôt tout de suite le ministre de l'intérieur génne benn communiqué ne tax nañu parti Pastef ah. ci fi démocratie Sénégal toll. waaw ah, mais njëkkee wu fii résolution nekkul tey la tàmbale am na Sénégal 60 am na fi 1960. nous sommes en 2023 ah, euh, nous sommes en 2023. dama ne la. Mamadou Gueye nous sommes en 2023 dama ne la la. oui nekkul moom mooy joxe récépissé parti politique. dangay dem déposer à la sous-préfecture mu dem gouvernance dem ministère de l'intérieur ba tey nga jot sa récépissé boo ñu la jox dafa am ay charte yoo war a tënku te bi ñuy dissoudre euh, le parti dañ ci basé sur l'article 4 de la constitution wax leen ne que yéen war a méngoo ci démocratie da war a doxee da war a respecter bonne gouvernance respecter la justice defoo leen ko par conséquent on retire le récépissé man nga xam ne amuñ permanence def rapport non dama ne lu kenn defut da ngay am lu def li ñu deful kenn dañuy def lu ñu deful kenn la preuve bi ñu ko def bi ñu ko interpellé am na ci ñoom ñu génn ci ñu ànd nekk ci parti am di yuuxu naan non non ville morte nangam nangam loolu mooy lan ay nit simple dañu mën a dañu mën a déstabiliser réew mi mënut a nekk te réew tey Ousmane Sonko bu ko bëggee jël kenn xamul ëllëg liy xew yàlla mën na ko jox mais dafa war a fekk état l'état fort bi dëgër fekk état bi am na mu toogee mais tey ku bëgg affaiblir état bi kooku mënoo on doit travailler à renforcer l'État. mais dissoudre parti sànq nga jox papier bi euh, ñi nga xam ne ñoo ne ci parti bi. kan. ñoom ñoo jotuñu benn papier. léegi ñu confirmé non du ma du considération xaw ma xaw ma ci loolu dara mais li ma gis arrêté bi a dissoudre le parti te loolu en 1960 amoon na fi ak parti PAI amoon na fi ak BMS amoon na fi ak ñoom ñoom la. donc lan moo waral ñoom. mais nous sommes en a Mamadou aussi bu ñu fàtte loolu. même bu dee nous sommes en 2023 on doit renforcer la démocratie. bi ñuy bi ñuy yooyu. dafa am lu taxoon ñu dissoudre ko am na lu tax ñu dissoudre ñoom am na ay voies de recours am la cour suprême fi nañ dem jël kayit bi yóbbu. ok mais précipitation précipitation bi ma ci wax mooy. dissoudre nañ parti bi ñoom génnee photo yi dem ci yeneen permanence yi di jël bagage yi mais loolu aussi quelque part. non xam nga du ma dugg man ci mission ci mission régalienne bu état du Sénégal en tout cas. mais ci loo xam ne am nañu quand une personne am nañu droit ñu def recours. boo amee nit bu toog ne euh, ci bu boo xam ne woo nañu dialogue nga ne dialogue yow kon yow mooy yaakaar nga ne. xeex waaw parce que dialogue wul. waaw mooy yàqu yàpp nga ne xeex. parce que dañuy jàpp ay ñooñam. bu fekkee ne dañ laa woo ci waxtaan nga ne waxtaanoo dañ la woo ci jàmm ak teraanga nga ne defoo ko dañ la woo ci nangam nga génne garsa garsa mooy yow da ngaa soxla def épreuve de force épreuve de force boobu nag tey ci nañ toll lan lay jën nit nga songu état du Sénégal lan lay jëriñ ba ndam nga ci mën a ko xool phénomène 2021 ak 2023 di nga xam ne bokkul parce que les gens sont fatigués nit ñi li ñu bëgg mooy jàmm li bëgg mooy dal am parce que le Sénégal dépasse xoolal nos propres bokkul du du yobamb du man du président Macky keneen Sénégal dëkk la boo xam ne dafa am nu muy doxee au delà da ñun am na ay suñu njaboot yu war a ñëw après ñun am na ay génération yu war a ñëwaat donc loolu la war a gën a préserver donc du benn nit moom moo war nekk candidat mooy messi mooy nangam mooy prophète non non non pourquoi ce parti ñoom ne constitué wu ñu woon pour préparer d' autres personnes bàyyi plan A à Z aujourd'hui gis nañ ko ne xeex xeex xeex ba kañ. mais est-ce que foogoo aussi dañ ko. guerre mondiale sax ko sos si mairie ba mu ba mu sos aussi. non guerre hmm? nga. ci koo xam dañ ko topp bu euh, génnee mooy ñu ko euh, am na 2021 2023 teguñu kaso jël la yóbbu la sa kër tolérance am na. tolérance am na te teewul ko ne di génn di attaquer les forces de l'ordre di attaquer le général le général di attaquer le haut commandement de la procureur de la République di saaga le juge doyen des juges. di saaga le président de la république man maay diw wuyu leen bu ñu la convoqué doo tontu nit ñi di sànni loxo diw waxul dëgg bu ñu la wooyee nga toog doo faale juge d'instruction bi après ñu bàyyi la nga ñibbi loolu la xanaa yow yaa yàlla. ok mais léegi ces arrestations là ciblées ci parti Pastef loolu euh, lëmu ak luñ ci. luñ ci ciblé non pas ciblé.

nga ñibbi sa kër dem doxal nànk sa mairie. ok ah. ñëpp yaakaaroon na période bi période décrisper la situation politique la. Mhm. ñu doon wax sax peut-être probable gisee entre moom ak le président la République finalement on en arrive dans cette situation là. quand même mais réew dafa am nu muy doxee du sentiment nit yi dañuy jiital réew doo ko jiitalee xol da nga jiite xel. maanaam amul na yoo xam ne amul sentiment parce que tey am na ay président yu dangereux yoo xam ne tey bu amoon imagine toi tey ñu jël ko décision bi. nekk fi ñu affiché ko def ko li ba publier ko te jëriñoo la imagine tey nit ñu ne am na acte yoo xam ne jot na fi am ak terrorisme yu demee noonu ñu ne yow jàpp na ci ay nit ndax bien avant koy jàpp am nañu ay nit yoo xam ne nii dañ leen jàppoon ci ay dossier ay dossier cocktail molotov am na fi dossier terrorisme am na fi lu nekk ay commando Pastef merci léegi nag boo demee tey boo demee tey bu mu aboutir à à son arrestation ça veut que y a une chose qui lu joroon xew balaa ñu koy jàpp procureur am na lu noo nekk di gëstu ñaari at di dajale bu mu dem ba mët ba jàpp ne kii am na lu mu ci laale ba boole ko ci mbiru association de malfaiteur te yow boo bokkoon tey ci benn entreprise délictuelle dañ lay jàpp nga bokk ci biir comme si complot comme comme koo xam ne nii da nga jàppale gars yi pour ñu def ko donc da bokk ci association de malfaiteur boobu donc loolu bu wax ne dara ay mbir la yoo xam ne enquête moo ko jar ñu di teg ko loxo jàpp nañ bu dee deful dara dinañ ko